إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقال بي بالمجد المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقال بي بالمجد المصطفى إلى الكتاب والحديث